dànkoon am ci may wax am na ci. ak Abdoulaye Wade lu yàggul dara wax nañu. waaw et puis Macky Sall ak Abdoulaye Wade mosuñoo arrêté wax de. Ah waaw. cest à wax direct peut-être non mais je veux dire wax par personne interposée mosul ñàkk xam nga parce que ku ne xam ne ku mel ni Mahmoud Saleh par exemple. a toujours été un relais entre Wade ak ak ak ak ak ak ak euh, am na benn moment mais joué na bu pare dem France ba président de la République euh, Macky Sall euh, Abdoulaye di bind makisal Sall lettre di ko proposer naka lañ mën a def ba trouver accord politique ak donc wax moom dafa mos a am seen diggante c'est que c'est pas sur la place publique mais wax dafa mos a am. tu comprends euh, maintenant. dafa am wax yoo xam ne aussi damay doon foo xam ne jamono day doon foo xam ne wax jooju peut-être maslaa lay doon mais du jariñ dara. kon bu ñu ko la dégg mooy dara mënatul am. seen diggante ci wax lay doon mais du jariñ dara. parce que diggante dafay dem ba yàqu yàqu boo xam ne kenn du ko mën a defar. parce que li li Macky li ka li Ablaye bëgg Macky Sall mënu ko def. d'accord xam nga ne ma li Macky Sall bëgg. Ablaye Wade mënu ko def dafa bokkul ak intérêt Ablaye Wade. <laughs> la intérêt familial mhm. intérêt boppam d'accord donc dafay metti voilà euh, gis nañu ne Chine ñëw na fi Babacar euh, Justin